mbokki jullit yi mbokki taalibe yi dellu si nañ ci kàttanu yàlla ak mbaaxam si tiir bi ñuy wax alaxdariyu alaxdariyu jàngoon nañ si li nga xamante ni moom mooy ñeenteel darsu tey ñëw si rëtka cinquième darsu bi waaw darsu bi nag ñu doon jàng farata ak ngëneel yi darsu bi jàll ñu doon jàng farata yi ak ngëneel ak sunna yi loolu ngi ñëw si li nga xamante ni moom mooy yàq njàpp li nga xamante ni nag mooy yàq njàpp am na li nga xamante dafa yàq njàpp direct wax na am na ñetti anam li nga xamante ni dafa yàq njàpp direct ak li nga xamante ni ay sabab la yi nga xamante ni yàq njàpp mën na see xew ñu far boole ko si yàq njàpp am yi nga xamante ni du sabab du toj te bu amee dafay yàq njàpp boobaa loolu nga gis na ñetti anam la mu ñëw di continuer mu ne nawaqidul wudu yi yàq njàpp ahdaasu nay toj la wa asbaabun ak ay sabab yi yàq njàpp ay toj la ak ay sabab ak yi nga xamante nii du toj du sabab moo tax mu ne fal ahdaasu ndaal toj yi nag al bawlu mu mooy tuur ndox tuur ndox dafa yàq li nga xam mooy yàq mooy mooy njàpp wal xaayitu ak dem duus nit ki bu duus ba pare jàppal ne njàppam yàqu na war riixu ak ngelawal nit ki bu ngelawalee njàppam yàqu na wal maju ak génne maju génne maju wal wajju ak wajju dafa yàq njàpp ak mën bi nga xamante nii dafa génn ci bànneex buñ baaxoowul dafa génn ci bànneex buñ baaxuwul ma ni boobu dafay dafa yàq njàpp kon boo xoolee juróom-benn anam fii dana yàq njàpp waaye nag indiwul juróom-benneel bi mooy tuur ndox bi nga xamante ni dafa jugee ci kanam nit ki fi ak dem duus bi nga xamante ni dafa génn ci ginnaaw nit ki ak ngelawal ak maju ak wajiw ak man ni bi nga xamante ni dafa génn ci bànneex boo xam ne baaxuwuñ ko wala mu génn ci lu dul bànneex dafay yàq dafa yàq li nga xamante moom mooy njàpp ndax mën yi ba warul sangu waaye dafa yàq li nga xam ne nag buñ ko waxee moom ndox la boo xam dafay génn ci li nga xamante ni moom mooy ci fo walla ci xalaat wala ay laa zakara yooyu maju da siy génn waaye nag moom bànneex bu daw la waaye nag mën yu nag buñ ko waxee mën yu buñ ko waxee ndox la boo xamante ni dafay génn ci bànneex bu mag buñ ko waxee sëy lay si sëy lay génnee waaye nag mën na génnee si yeneen yu du sëy mën na génnee si yeneen yoo xamante ni du sëy mesure ak mën yu nag boo leen bëggee xam mesure nag mesure boo ko bëggee xam ak mën yu bu fekkee nit dafa génne mën yu ba wow na jël ab toqum ndox bu tàng daal ko say def bu ko naanee si saas rek nga xam ne loolu mu xam ne loolu maju la waaye nag bu fekkee naanu ko bu ko naanee sa saas rek moo xam ne loolu mani la waaye nag bu ko naanu rek moo xam ne loolu loolu maju la wadu yi nag ndox la boo xamante dafay génn si mujj tuur ndox walla yenn lu diis da koy waral wala seddaay bu ëpp da koy waral loolu mooy wadu kon wax naa la yi nga xamante ni moom mooy yàq njàpp direct juróom-benn yi wax naa la ko waaye nag moom indil juróom-benneel bi waaye nag wala asbaabu sabab yi nag sabab nag bu ñu ko waxee mooy yi nga xamante ni bu amee toj mën na saa am te nit ku du xam ñi ba far boole ko ci nga xam dafa yàq njàpp bu si njëkk mooy an naw mu mooy nelaw ak saqiilu yu diis nelaw dafay yàq njàpp nelaw nag am na ay façon waaye nag boo xoolee am na ñeenti façon nelaw nelaw bi nga xamante ni dafa diis gan ba nga xamante ni ki dafa sonn di tëdd nelaw yëgul sax li xawati àdduna bi kooku bu duggee si néegam génn ba dugg ga ba génn du si dara kooku nelaw yooyu dafay yàq li nga xam ne moom mooy njàpp foofu mën na faa ngelawal mën na faa def lu ko yëg moo tax ñu ne nelaw yi dafay yàq njàpp ñaareel ba moo nga xamante dafa gàtt diis maanaam nit ki nelaw nelaw yu gudd waaye nelaw yu gàtt la nelaw waaye dafa dis gan nelaw yoo xamante ni ku dugg du yëg ku génn du yëg nelaw yoo xamante bu yoroon dara sax loxo bi mën na koo waddal te yëg nelaw yooyu dafa yàq njàpp mooy ñaareelu anam bi dafa yàq li nga mooy njàpp ñetteelu anam bi mooy nelaw bi nga xamante ni dafa di dafa oyof dafa oyof waaye nag dafa gudd nelaw yooyu noonu <clears throat> du yàq njàpp waaye nag wax nañ ne dañuy sopp si moom mu jàpp sopp na bi ko waxee mooy loo xamante ni warul bu la neexee nga dem def ko waaye bu la neexee tamit nga bañ koo def waaye def ko moo gën ñeenteel anam bi mooy nelaw yi nga xamante ni dafa gàtt lool waaye dafa oyof ba nga xamante ni boo toogoon si néeg bi di nelaw bu nit duggee nga yëg bu nit génnee nga yëg loo yor sa loxo bi waddee nga yëg daal di koy foraat loolu mooy nelaw yi nga xam mooy mooy nelaw nelaw nelaw yu oyof kon ñeenti façon nelaw yaa ngi noonu yu diis yu yu gudd te diis yu gàtt te diis dafa yàq njàpp yu oyof yu oyof te gudd dañuy sopp mu jàpp yu gàtt te te yu gàtt te diisul waaw du du jàpp sopp mu jàpp waat wala ma ak xam dafay yàq njàpp xam nag buñ ko waxee moo nit ki mën na maanaam jékki saay rek daal di daanu te ne daanoo nag jamono boobu bu paree mën na fa nelaw nelaw yu diis te loolu du ko du yëg sax ne moom bu paree sax mën na ko wax da ngaa xamoon te du ta du si xam dara mën na ko weddi sax kon kooku noonu nga gis ne mën na faa génnee li nga xam ne mooy ngelawal wala leneen te du te du ko xam moo tax ñu ne loolu dafa yàq njàpp wa sukkur ak mandi mandi dafa yàq njàpp nit ki bu mandee mën naa wax lu ne si àdduna tu du ko yëg mën naa fekk waajuram toog mu saaga ko mën naa fekk jabaram toog mu saaga mën naa fekk xaritam toog mu saaga ko moo tax ñu ne ki nga xam dafa màndi bu bu ki nga xam dafa màndi moo xam lu màndee lu dagal moo xam lu màndee lu xaraam la dafa yàq njàpp waaye wax nañ ki nga xamante dafa màndee lu dagan comme koo xam dafa màndee lu dagan kooku noonu wax na ne bu fasee jabaram sax fase moom tàbbiwul waaye nag ki nga xam dafa fase jabaram si lu xaraam si màndi wu kooku noonu fase moom tàbbi na wal junuunu ak daanu junne dafay yàq njàpp waaw jéeg saa rek ay junne daane ko kooku noonu ba tey dafa yàq njàpp ndax mën naa def leen li yàq njàpp wal ak fóon fóon yàq njàpp fóon nag buñ ko am na am na itam laaj na teqali fóon gémmiñ ak gémmiñ nu man mën di demee dafay yàq njàpp fóon gémmiñ ak gémmiñ ni mën demee dafay yàq njàpp moo xam dañ koo bett moo xam dañ koo forcé waaw waaw bi nga ko fóonee rek dafay yàq njàpp ndax la moo tax ñu ne fóon dafay yàq njàpp ndax fóon en général nit ki bu ko daan def da siy am bànneex moo tax ñu ne bu fóonee nit ki dafay yàq njàpp lu may fóonu tàggatoo wala fóonu yërmande ñaari fóon yi du yàq njàpp waaye nag bu si amee bànneex wala mu jublu ko si rek moo xam jublu na ko moo xam wala am am na ko sa bu si ñaari bu si am rek dafay yàq li nga xam njàpp wala mu si ak laal. wa lamsul mar'ati ak laal jigéen waaye nag moom laal la waroon wax góor laal jigéen jigéen laal góor yépp la la waroon boole wax ne dafay yàq li nga xam ne moom mooy njàpp waaw laal nag nit bu laalee jigéen am na am na ñeenti façon bu laalee jigéen gi te jublu si bànneex ca am si bànneex dafay yàq li nga xam ne moom mooy njàpp bu si jubluwul bu si bànneex waaye am na si bànneex dafay yàq leen xam mooy njàpp waaye nag bu fekkee jublu na si bànneex te amu ci bànneex dafay yàq leen xam mooy njàpp waaye nag bi nga xam ne du yàq njàpp mooy jubluwul ko si te amu ko si du yàq njàpp waaye nag nga dégg si laal moom moo xam bu si jubloo te amu ko si dafa yàq njàpp wala bu ko si jublu dafa yàq njàpp ñaari daa bu si am rek jàppal na njàpp la dafay yàqu moo tax sa a wajadaha wala mu am sa waaw bu daal am sa waaw ñaari bu si am rek dafay yàq mooy njàpp wa maju zakari ak laal dafay yàq njàpp bi baatini kafi si biir tenqi loxo yi aw bi baatini asaabi wala si biir baaraam yi jàpp bu fekkee nit ki dafa laal zakaraam dafa yàq njàpp zakara bi nga xamante ni mu ngi jokk ci moom waaye nag bu fekkee dañoo dagg zakaraam mu dagg teg ne mu jël ko daa di koy boobaa loolu du yàq njàpp yàq njàppam waaye nag bu fekkee dafa dagg ba des tuuti mu jàpp mu daa di dafa yàq njàpp waaye téye nag mooy si biir loxo yi fi nga xam ne mooy xonq ca loxo ya wala si biir baaraam wala si wetu baaraam yi boobaa la yàq njàpp waaye nag wax nañ ne bu fekkee loxo bu nga ko laalee baaraam bu nga ko laalee yëgul boo ko kaataa sax du yëg booba wax nañ ne loolu du yàq njàpp waaye nag bu fekkee baaraam bi nga xam ne dafa dollee comme juróom-benn baaraam di mu ngi yëg sax dafay bu fekkee dafa yëg dafa yàq njàpp waaye nag bu yëgul du yàq njàpp wax ne ne sax baaraam yi nga xamante nii baaraam cosaan la bu yëgul du yàq njàpp waaye nag bu yëgee dafay yàq li nga mooy njàpp mu bëgg laa wax nag li nga xamante ni du sabab du sabab te du toj yi nga xamante ni du sabab du toj waaw yooyu daf dafay yàq njàpp moo tax mu ne waman sakka ku sikk fi xadat si ci toj wajaba war na alay si moom alwudu njàpp illaa yakun lu ma mu nekk mu wasu sa ndey jax-jaxal fala see alay dara du ko ca war njàpp dina war ci ki nga xamante ni dafay sikk bu fekkee sikk nag wax ne naa am na ñetti xaaj sikk bu si njëkk mooy nit ki jàpp ba pare di sikki saaka njàpp bi yàqu naam yàquwul boobaa dañ naan ko demal nga jàpp jiwaat ndax moo gën a wóor ñaareel ba mooy sikki saaka jàpp naam jàppuwuma dañ naan ko demal nga jàpp jiwaat waaw ndax nit ki bii julli war na yor njàpp loo xamante ni wóor na ko ne moom am na njàpp mu doog dem julli ñetteel ba mooy mi sikki sàkka moom moom xam ne na toñ ne na waaye tamit xam ne na jàpp na waaye xamul ñoom ñaar ban moo si jiitu bu boobaa dañ naan ko demal nga jàpp juwaat kon loolu mooy sikk ñetti xaajooy la am leeral nañ ko lu may koo xamante dafay jax-jaxal kii jax-jaxal mooy kan mooy ki nga xamante ni chaque jour chaque jour dina sikki sàkk ma mbaxam sama njàpp yàqu naam yàquwul dañ naan ko yow jéggal nañ la ko waaye nag bu fekkee moom day jëllal tey mu sikki sàkka baay ba ginnaaw suba wala ginnaawaat suba mu doog sikki sàkkawaat kooku daay saa su sikki sàkka dañ naan ko demal nga jàpp juwaat waaye nag bu fekkee koo xam ne dafay taxaw moom kooku dañ naan ko boo sikkee dañ la koy jéggal ndax saa soo sikkee mu dem jàpp ji rek day métti moom moo tax ñu ne ko saa soo sikkee rek jégal na ko bu fekkee dafay ñëw chaque moo tax mu ne waaye ji bu dana waar alay ci mukallaf bi xasu zakari yi mu raxas zakaraam kulli yi lépp minal maju ci bu génnee maju waaw mukallaf bi nag bu génnee man bu génnee maju dafa war mu raxas zakaraam monsieur ban lay raxas zakaraam monsieur boo xamante ni génnul si bànneex waaye monsieur boo dafa génn si bànneex dafay war mu raxas zakara bi yëpp bu boobaa dafay raxas zakara bi yëpp waaye nag bu fekkee ne génnu si bànneex fa taq rek lay raxas naka noonu bu dee jigéen la dafa génne maju moom moo xam ci bànneex la ko génneem génnu ci bànneex fa taq rek lay raxas waaye nag bu fekkee góor bu fekkee bànneex fépp lay raxas waaye nag bu fekkee waaw euh, euh, génnu ci bànneex fataq taq lay raxas moo tax mu ne walaa yax su du raxas al unsa yi ne ñaari way yore yi waaye nag bii raxas du raxas ñaar way yore yi wal maju maju nag moom lay moom maju lay jàngale nii mu ne huwa moom almaa un ndox la alxaariju bi génn a sawatin si bànneex asuxraa bu ndaw bi tafakurin ci xalaat aw nasir wala xool aw xëyri xiwadu lul loolu mu ne ndox mu ne mën nuyu nag ah maju nag ndox la bu weex boo xam ne dafay génn si jamono ba si euh, bànneex boo xam ne bànneex bu ndaw la si xalaat lay génn wala xool wala yeneen yoo xamante du yooyu moo tax waaye nag bu fekkee si mën nii la moom bànneex bu mag moo koy génne ki demee ni ki sëy ak yeneen yooyu yidul yooyu yeneen nag mën na koo génne comme nit ki di xelaa sax mën na génne mën na génne mën niyu waaw wala mi fas zakara mën na génne mën niyu waaye wax naa la mën niyu ak teqal naa la mën niyu ak mëju léegi nag mu bëgg a duggaa si beneen buntu moo tax mu ne la faslun yaa fasala la laa yaxillu du dagan li xayri mutawadiwu ñeel ku yurul njàpp salaatun du julli wala tawaafun te du wër kaaba ga wala te du laal derba laa bi yiddi du ko laal ak loxoom wala bi awdin du ko laal ak bant wa naxwi ak yu niroog yooyu illaa gis an lu mooy xaaj min haa tiki jàng aw min haa illaa gis an lu mooy ab xaaj min haa ci moom almutaalim tiki jàng fii ci moom mu ne nag nit ki daganul ku yurul njàpp du julli daganul ci ku yurul njàpp muy julli waaw te du wër kaaba ga bu fekkee yurul bu fekkee ne te du laal kaamil bu fekkee ne yurul njàpp ndax dafa ne na kaamil bu fekkee ne nit ki dafa bëgg laal kaamil te yurul njàpp bu boobaa du laal kaamil boobu noonu waaye nag bu fekkee ne ki nga xamante ni moom mooy jàng sa daara ja wala ki nga sëriñ bi nga xam ne moom moo koy jàngalal booba ba may nañ ko mu laal xaaj waaye sax li gën a mooy ne may nañ ko mu laal kaamilu alquran ndaxte moom bu fekkee ne chaque jour dina laal kaamil dina jàng bu bëggee jàng chaque jour mu jàpp boobaa day métti si moom moo tax ñu ne ko saa soo bëggee laal kaamil mën ngaa laam kaamil may na la ko waaye nag bu fekkee ne benn waaye moo jógee fële ñëw bëgg a laal kaamil alquran dinañ ko déedéet bala nga xaalaal demal nga jàpp ji waaw ndax am Omar mu Xataab ba mu bëggee dugg ci mbam ba mu gisee ñoo fekk mbokkame di jàng téere yàlla bu sell boobu noonu mu dégg ko gis ne jàng mu neex la mu ne ana la ngeen doon jàng ñu ne ko bañ la kaa bañ la kaa jox di dem sangu ji ngir mu mën a laab bu boobaa ñu dog la kaa mën a jox nga gis ne ki nga xamante ni dafa bëgg laal alkaam lal Quraan dañ naan ko demal nga jàpp ba pare doog koo mën a laal waaw lu may nag ki nga xam ne mooy xale bi nga xam dafay jàng sa daara ja wala sëriñ daaraam bi koy jàngal ngir waaw ngir mu koy googu noonu mën nañ koo ah, mën nañ koo man mën nañ koo ah, moom man mën naa laal kaamil naka noonu jigéen gi nga xamante ni moo jàng sa daara ja waaye nag moom dafay gis ay mbërëg yooyu noonu kooku noonu sax bi nga kooku sax bu bëggee laal kaamil man na koo mën na man mën naa laal kaamil ndaxte moom dafay jàng sa daara loolu ngant la may nañ ko ko boobaa loolu dara nekku si moo tax mu ne wala masalahil alquran du laal alu alquran ala alazim màgg ba ala xëyri wudu si ala xëyri wudu si si lu dul jàpp illaa illaa li mutaalib lu mooy kii illaa li mutaalib lu mooy kii kii jàng fii ci moom aw muallim wala ku xëy aw muallimin wala ku xëy jàngal bi saxihu ngir mu koy wéral bari naka noonu xale bi nga xamante ni dafay commencé jàng naka noonu ki nga xamante dafay commencé jàng si biir mooy ñi nga xam ne dañu yor aliwa aliwa alxuraan yi ñooñu noonu waaw bu fekkee ne dañuy jàpp dañuy jàng may ne leen ñu ñu téye taal aliwa alxuraan waaye nag bu fekkee kenn koo xamante ni moom jàngul dafa jógee fële rek bëgg laal aliwa alxuraan nanga ko diir demal jàpp ji bala ngaa laal aliwa alxuraan ndax aliwa alxuraan jooju nekk waaw bindam yàlla moo sa nekk moo tax ñu ne ko bala nga xaa laal faaw nga yor li nga xamante ni moom mooy njàpp naka noonu sëriñ daaraam bi nga xamante ni moom moo koy jàngal may nañ ko mu yoo may nañ ko mu téye may nañ ko mu téye kaamil alquran ndax moom moom mooy wéralal xale bi di ko xamal baat di ko xamal xarafi waaw nii nii lañ ko tuddee nii lañ ko tuddee ngir ne moom kooku boobaa kon kooku noonu mën naa laal kaamil alquran dara dara du ko ta fekk moo tax ma ne wa sabiyu xale fi masil quran bu laalee kaamilu alquran kal kabiru kam mag wala ismu bàkkaar ba alal mu naawilu war na ko xujatuloo ñeel ko ki nga xamante moom wax nañ ne xale bu fekkee dafa laal kaamilu alquran waaw bàkkaar ba kan moo koy gàddu mooy ki nga xamante ni moom moo ko jottali ne ko jox ma kaamil boobu noonu li moo tax ñu ne xale ku ko dimbale ba mu def lu baax waaw de tiyaaba jooju noonu dinañ ko ko jox waaye nag ku ko dimbali ba mu def lu bon xamal ne bàkkaar boobu noonu yow ki nga xam ne yaa ko digal yaa koy gàddu naka noonu xale bi nga xam ne ko digal mu dem julli ji jàpp ba seede dem julli ji ba xamal ne tiyaaba jooju lañ koy jox waaye nag xale boo xam ne dañ koy digal mu dem si musique yi di fecci waaw yow mi ko digal yow lañ koy bindal yow lañ bindal bàkkaar boobu noonu waaw moo tax mu ne bàkkaar bi nga xamante ni ah, xale bi am na xale bi laal na ko bu boobaa kooku noonu moom mooy yor gëm ba gàddu bàkkaar ba waaye nag borom xadim ne dafa wax ne xale bu laalee xam alxuraan dañ koy sibi rek waaye ki li wax mooy ne xale bu laalee xam alxuraan bàkkaar ba mooy ne moom waaw ki nga xam ne moom moo ko jotiloo moom moo koy gàddu mu ne waman salla ku julli waman salla ku julli bi xayril wudu'i ci ludul njàpp xaamidan di aji tey fa huwa moom kaafirun yéeféer la wal iyaazu billahi ni ngi musli si yàlla mu ne ki nga xamante ni dafa julli ci lu dul njàpp kooku yéeféer la laaj na teqali nag ki nga xamante ni moom moom dafa weddi ne njàpp bokkul si si bokkul si waaw bokkul si si julli bu boobaa bu fekkee dafa wax ne njàpp nit ki mën naa julli te du njàpp da koo weddi boobaa xamoo ne kon kooku yéeféer la waaye nag bu ne ki nga moom dafa moom gëm na ne njàpp si julli njàpp si julli la bokk bala ngaa julli da ngaa war dem jàpp ji moom mu tey ko daa di dem maanaam kàcc ma moom mu tey ko daa di julli maa amul benn ngant boo xamante ni dalu ko fàttewul deful dara waaw wala force suñ ko deful dara mu dem julli xamal ne kon kooku noonu kooku kooku kàccoor la waaye dañu wax ne kooku yéeféer la ko kàccoor la kan la ñu wax ne yéeféer la mooy ki nga xamante ni moom dafa weddi njàpp dafa weddi ne njàpp bokku si waaw si julli nit ki mën naa julli te du yor njàpp kon xam nga ne kon kooku yéeféer la yàlla nag moo tax mu ne wala yaasu billah ñu ngi musal si yàlla yàlla na si yàlla musal yàlla na yàlla si jàpp ah, julli te bañ jàpp te fekk ñoo ko tey yal na yàlla musal si jàpp ah, ah, julli te bañ a yor jàpp te fekk ñoo ko tey bu ñuy julli yàlla nañ fekk ñu yor njàpp lu sell njàpp loo njàpp lu man la njàpp loo xam ne njàpp lu yundu saa bëgg la li moo nekkoon si darsu tey bi waaw lu si jub ngeen xam ne si yàlla la waaye nag lu si dëng ngeen xam ne suñu la suñu gàtt xam-xam ak suñu gëstu in uridu ila islaaha ma stata'tu wa ma tawfiq tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu